mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyoo di siyaar di ko tàmbalee ci sëriñ Mouhamadou Mountakha ñaan sunu borom dolli kattan kàttan dolli ko wér di siyaare al ummal islamiya di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bi ñu dëgmal di gàmm di fàttaliku ganeek àdduna ak yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi sangu bindeef yi jataay bi li ko waral mooy fàttali mbokk yi ne daayira bii di muqaddamatul xidma ak rawdu cheikh ahmad mouhamadou cheikh sidil muxtaar radiallahu anhu moo leen boole woon jox leen ndigalul ñuy dundal guddig ganek àdduna yont bi fii ci jumaa ji ba tey jii cheikh mahmoud muntaxa yeesalaat ko soññee ci ñaaxee ci waaye taxaw ci it loolu nag la ñuy fàttali mbokk yi muy kon ndigal loo xam ne ñoom it dañoo fàttali ndigalul sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mi nga xam ne ku ku ko xam-xam gàmm waxoon na bu yàgg ne axiyatu mawlid nabi min asashi te booba loolu yàgg na euh, fonkoon ko lool joxoon ko yitte lool màggal gu mag saa yu masaana ñëw sëñ Saalix Mbàkke radiyallaahu anhu bu masaana wax ci màggal ba noppi dana fàttali waale gi nga xam ne moom sëñ Tuubaa moo ko daan defal boppam loolee nag la kilifa yi jot joxe ndigal ci ñu daje fii ci barabam biir jumaa ji di ko fi dundal ay at a nii nag ñu koy def ci anam gu mucc ayib loole rek la ñuy fàttali bokk yi. fàttali it neen euh, guddi la goo xam ne it nag lépp ngi ci lii sëriñ Mouhamad Moustapha jàng léegi doy na rek waaw guddi nga nekk àdduna yonent bi ci la ñuy fare sikk guddik far ay coono la guddik laabal nit ñi ci bakkar la loolu rek kon ku bëgg tàggoo ki coono ku bëgg a tàggoog ay sikk yu ni baaxut yoo xam dañ koy sikk sàkk ci mbir ku bëgg a tàggoog ki bàkkaar fonkal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jàngaloon nañ moom sëriñ bi nuñ koy defee tanzimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bi diyaadul minnati li muxlisin muazimi noonu nañu màggal guddi yonent bi te ja teg màggale ko sunna kon def ci loo xam ne sunna la te liñ ci def fii mooy leen sëriñ Abdoulaye na ko leeral fàttali siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli ci moom jàng alxuraan berne nit ñi loolu muy sunna kon sëriñ bi noonu na ku ko màggal ci sunna màggale ko teg ko ci sunna danañ womo di bu ñu